gan gi mi ngeeg ñun Birame Khoudia ni nga ko waxee ana bokk ci parti Pastef di secrétaire général adjoint bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM. maa ngi leen di fay. Eh, waa Rewmi FM. jërëjëf alors euh, seen leader Ousmane Sonko gannaaw ba nu ko tegee loxo aljuma tey dafay janoo ak doyen des juges Maham jàlloo ñu bari di séentu ñu mandat dépp ko lan ngeen di xaar ci janoo booba tey. ñun janoo bi xaaruñu ci dara liñ ciy xaar mooy ñu bàyyi suñu leader mu ñibbi këram ndax deful deful dara mooy lépp li nga xam ni procureur mi ngi koy jéem a teg ci deram procureur mi ngi ci rolam waaye nag gis nañ ni loolu Ousmane Sonko mënuñu indi benn preuve ni def na ci lu ndaw bu dee dañ ni dafa jël portable jàmbur xamoon naa ni du Ousmane Sonko mooy fokkati ay portable xëy na dafa am ñu bu bëgg protéger te am na ku ko wax lii affaire caaxaan la pour éliminer un adversaire politique waaye nag loolu du mën a nekk waxuma du mën a yomb dama ni du mën a nekk hmm. lu wër laa wax te fu wër laa ko teg waaw. alors euh, séntuwu leen kon mandat de dépôt. mandat de xalaatuñ ko. xalaatuñu malgré li ko procureur euh, yéen yëpp juróom-ñaari chef d'inculpation mais procureur il est bul fàtte ni en deux mille vingt et un yaa ngi fàttaliku. Hmm. yii ñu wax yii yëpp yooyu la ñu waxoon deux mille vingt et tey dafa am luñ ci yokk rek. kon ñi doon dox jàmm ci deux mille vingt te am luñ ñu amee loon tey defe naa ni ñu ngi leen di déglu pour ñu wax ndax lii nag amoon na fi waaye nag dañu ko fayoon ñun dañoo fay ay wax ndax ñun jàmm la ñu bëgg. kon tey bu ñu yëkkatiwaatee lu mel noonu même chose boole ci deux mille vingt et un ça veut que euh, la ña dox jàmm ak la ñu waxoon kon tey ñooñu la ñu waxoon ñoom ñoo jël teggi teg fee ñu borom nag mi ngi taxaw di dëgg moo jëkk dëgg mooy mujj te lépp loo gis nag am na jeexital am na fu muy jeexee defe naa ñii dañu toll si teen njeexital ak fu ñuy jeexale moo tax lu ñu jiin rek xeb ko géwal nag bu repee ci xare lu mu jiin xeb ko la ñu yokk ci liñ fi tegoon 2021 moo jaaxal ñu bari bokk na ci wàllum terrorisme ku ne xam ne terrorisme tey dañ ko criminaliser ci Sénégal gën ngaa gàtt fukki at kan ko tuumal dana ko tëdd la ñu bëgg a xam mooy bu nu mandat de dépôt Ousmane Sonko lu ñu bari di séentu lan ngeen nar yéen waa PASTEF. mais terrorisme laay jëkk ñëw terrorisme mooy di ragalloo nit ñi maanaam ragalloo nit ñi nag ki kay def mooy kiy jël ay euh, euh, arme di ko tiire ci kaw nit ñi te ñëpp teg ci seen bët ba mu génn Sénégal jéggi suñu ay frontières nit ña di ci wax ci àddina bi yëpp ci ñi nga xam ni dañuy jël seen ay arme di dóor ci kaw nit ñi ak arme yi nga xam ni dugg na Sénégal ak arme yooyu Mediapart di wax defe naa loolu nag moo jege terrorisme ak nag ñi nga xam ni dañu war a protéger suñu ay frontières ba pare arme yooyu di fa dugg kon terrorisme am na beneen camp buñ koy séenoo lu dul ci camp Ousmane Sonko ana commando ba. indiwuñ benn firnde ana eh, yeneen yi ñu doon wax force occulte ya jàpp ay nit rek spécial ba ak ba maaka bu daal di ci yàq bakkanam ma ni lépp loo gis am na fu muy jeexee te fi muy jeexee ñun moom la ñuy xaar ndax lii dafay am fu muy yam hmm. lii mënut a continuer réew mi mënuñu di ko yoree nii ku ñu denk réew réew lañ la dénk dénk loo ñu la ab koñ koñ sax wala kër sax boo ko dee gérer di fexe ba nit ña yam ca kër ga waaye kumba am ndey kumba amul ndey bu teyee kii saaga wax lu ko neex ñu bàyyi ko wax ay actes yu nga xam ni yii ñuy jiiñ Ousmane Sonko yëpp gis naa ñu nga xam ni mën nañ leen ko tegal tey parce que dañ ko jëfe wax ka ak ay preuve or Ousmane Sonko amul benn preuve bu war a tax ñu ni moo def loolu lu dul moom de bés bu ñu ko ñeewalee doole rek mu ni man de maa ngi woote résistance résistance nag dafa doon lu nga xam ni euh, suñu constitution moo ñu ko may bu ñu la tegee lu nga xam ne jaaduwul sañ nga bañ résistance mooy bañ bañ nag ñu ko fekkoon ci Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ni moo mën ñëpp dañ ne yonent baa gën ñëpp ku mën ñëpp muy Cheikh Ahmadou Bamba ma ni képp kuñ fi teg dara lu nga xam ne am na lu la naqari xalaatal Cheikh Ahmadou Bamba boo ko xalaatee dina wàññeeku cinquante pour cent kon tey yii ñuy def amul bopp amul gente dañ ko war a teg ci suuf Sénégal ñoo ko bokk lii day wéy lay ñëw day ñëw te lii day des ci histoire kon nañ ci rafet tey bés bu nga xam ne la ñëpp ñu koy xaar di fa xaar juge bi nga xam dafay instruire en charge en décharge aujourd'hui amul benn élément war na mën a euh, may affaire Ousmane Sonko bu dem këram ndax nag jàmm lañu bëgg ci réew mi ndax réew boo ko bëggee yore ëllëg waaye waaye da ngay ñaan réew ma am jàmm di def lu tax réew ma am jomm ñun nag foofu lañu taxaw. bu fekkee ni na ñeneen ñu nga xam ni. ñoom hmm. la ñuy xalaat yëpp mooy ay wala di wut kawoo waay waay ñun du ñu wut kawoo ci réew mi ndax ay patriote lañu dañu bëgg suñu réew suñu réew mi kat dañu ko bëgg sàmm ndax gàccee lañu toll fi ñu toll ci développement ba pare nekk di def yu nga xam ni kenn xamul lan la inondation yaa ngi ñëw lu nekk ngi ñëw est-ce que dégg nga ñu xalaat ci wala ñu def ci conseil interministériel wala ñu def ci dara kon ñii faale wuñu sénégalais yi loolu mooy problème bi. da ngeen nar a résister da ngeen di dem tribunal wala da ngeen di toog seeni kër xaar. dinañu booloo dinañu guruboo dinañu toog xaar lépp lu ci ubbeekoo bu dee lu jaaduwul du ñun ñooy résister peuple sénégalais mooy xool ni lii jaaduwul mu taxaw résister parce que ndaw yi kat dafa am lu ñu digoon Ousmane Sonko. Hmm. dig ñu ko Ousmane Sonko nag commencé na grève de la ndax kat am na lu nga xam ni yanu wut maanaa. wax naa biro politique bi ne yéen ñëpp da ngeen observé grève de la faim ñu nga cay wax waaye man de bu dee ci man ñun ñëpp dañuy organiser grève de la faim ndax nag li ñu lu ñu la laal waxuma la ñun waaye sénégalais yëpp lañ laal fii mu ne ma ni ku grèvewul de la faim munoo lekk ndax injustice mënul am ngay lekk di naan di naan ataaya. kon fi mu ne lekku naanu leen yéen waa Pastef. ma ko ma lekk ma naan ataaya munuma ndékki tey grève de la faim bi fokk ma bokk ci man biram xujaloo kañ ngay tàmbali Ousmane Sonko de moom tàmbali na lu wér hmm. tàmbali boo demee sama waa kër hmm. dinañ la wax ne la tàmbali na moom de nangootul lekk loo lu wér la hmm. yàlla nag ci leeru yàlla dinañu dund dinañ taxaw waaw alors est-ce que Pastef am na tey doole jum résister ndax daanaka lu baree bari ci ay responsable am ñu ngi ci kaso bi militant yu baree bari aussi ñoo ngi wax si 600 maanaam juróom benn téeméer euh, ci ay militant wu Pastef ñoo ngi ci kaso bi est-ce que dara desati na fa lu ngeen mën a résister. Pastef mooy Sénégal Pastef mooy Sénégal Pastef mooy ku jub Pastef mooy ku am détermination Pastef mooy ku am fit képp ku lu amul yooyu yëpp bokkoo ci Pastef kon Pastef mooy Sénégal. yàgg nañu gis Lat Dior yàgg nañu gis ñeneen ñu nga xam ne ñooy Sénégal tey Pastef mooy Sénégal kon bu ñu jëlee ci euh, lu nga xam ne mat nañ trois millions de personnes wala deux millions de personnes ñu jël te six cent personnes gardé ma ni bopp boo dagg beneen bopp judd hmm. xanaa gisoon nañ di gañ dem ba ture ma koy gërëm di ko sant chaque jour maa ngi koy félicité moom sax nee na ñu ngi koy wër jàppaguñ ko ma ni nañu bàyyi naan ñu ngi koy wër ana Juan Branco di dañ ñu ngi koy wër maa ngi nii monsieur le procureur ngi nii taxaw waaw ñu bàyyi ba mu dem ñu doon jaan daw ñu topp ca watit ga di dóor waaye nañu bàyyi li ñuy def kenn mënuñu nax nañu bàyyi ay ñu ngi koy wër nangam nangam bi ko siiwal mel na nit ñi dañoo ragal di daw amut kenn kuy ragal di daw fii ragat amu fi la fi amoon 2012 di dem ci ay nit di ñaan pour ñu bañ la tëj amu fi ma ni tolluñu foofu Ousmane Sonko bu nekkee ci biir kaso ñu nekk ci biti mel na na ñu ngi ci kaso ñun. waaw pourtant fan yee ñu ngi doon wax ne dafay gën dagan ci ñun que ñu nekk ci biti bu fekkee Ousmane Sonko bi ngi ci kaso ñun foofu la ñu toll ci réflexion foofu la ñu toll ci engagement kon amul benn waxtaan parce que fan yee ñu ngi dégg ay médiation ba ñu teggee barrières yi sax ñu bari gëmoon ne wax dëgg yàlla waxtaan am na ci suuf kon dara amul dafa am ñu nga xam ne bu ma leen déggee ñuy wax man kenn gënuma muus hmm. am na ñu naxoon Ousmane Sonko di ca dugg di wax am na ñu bare ñu ngi wax fii mu nee naan médiation ils sont complices ñu ngi préparer lii nga xam ni kat bett sénégalais yi la te ñam a ko war a wax nañ def attention kenn mënu ma nax bu ñu dee nax nañu nax xale yi nga xam ni booy wax loolu wax ñu gëm ko booy wax loolu sa xel ci kan lay dem du ma tudd mais ñi may wax xam nañu ña ñuy téléphoné xam nañu la ñu may laaj xam naa ko te nañ def attention mënuñu am parrainage e nañ ma may jàmm hmm. attention nañu téye seen làmmiñ je ne suis pas comme ça waaw ndax ba may demee damay jaar ci tur man xaw ma yooyu. waaw wax ñu wax ñu ñan ñooy doon négocier kay ñun dañoo bëgg a xam di wax nañ ma ni kii wax ni dañu doon négocier nangam nangam ñooñu wër di wax laa ni nañu téye seen làmmiñ xaw ma analyste lañu nañ ñu may jàmm. fii lu taw a xam dafa yàggul. mais même Pape Alé Niang wax na fi nañu ubbi waxtaan diggante président ak Sall ak euh, Ousmane Sonko donc même. ci seen wax na nañu tijji waxtaan moom dafa wax nañu tijji ba Pape Alé Niang est un résistant hors pair. ok Pape Alé kuy wax Sénégal Guy Marius Sagna tuddal Pape Alé Niang tuddal moodi Niang waaw ñooñu kenn amul lu ñu leen di wax. Hmm. kenn amul lu ñu leen di wax. d'accord loolu mooy problème jàpp yu bari ci seen biir itam am na ñu ne fa mu jëm mooy ñu tas parti Pastef ragalu leen loolu. waaye man def naa fi ket def naa fi nu mu tuddati euh, euh, euh, sondage. am na lu ñu koy waxee di fàttali naa ko am am na lu ñu def di bind. di bind pour nit ñi def naa fi pétition. ñaata million ñoo wax ni nañu tas APR ba nga xam ne day jël xaalisu Sénégal ak di jël xaalisu askan wi ak di jaawale poosam ak poosu askan wi waaye di jaawale ay moyen de l'État ak moyen am ba ci police ba ci gendarmerie nekk ci wetu gendarmerie di def ay acte loolu nga bul yaakaar ni justice dafa na saay justice dina taxawaat redressé wu ñooñu ñëpp am na lu leen di xaar nañu bàyyi li ñuy def réew mi ñoo ko bokk bés du ñàkk kon nañu def attention bés ngi ci bés yi. nee nañu dem nañu itam kër son ko démb doon perquisitionné lan lañ fa doon wër. man de dama yaakaar ni si sama yaakaaru bopp sama xel mu gàtt la ma yaakaar ni dañuy wut ay indice parce que ñoom amuñu benn preuve amuñu dara ma dégg nag ni benn taleb sow waaye arrêté nañ ko benn taleb sow. waay waay ban taleb xale la bu nekk foofu ci biir kii bi nga xam ne dafay nekk ci kër Ousmane Sonko kooku ñu jël jàpp nañu bàyyi jàppaate bi benn taleb de boo ko jàppee te jàpp Ousmane Sonko est-ce que du du gën kontaan sax moom. Hmm. ndax Ousmane Sonko bu xasee ba nekk ci kaso bi waaye ma ni fii mu ne lu mat junni junni sénégalais ñu ngi taxaw pour ñu jàpp leen yóbbu leen ci kaso bi ndax nag Ousmane Sonko bu nekk kon gor yaa nga ca kaso ba waaw gor bu ñu nekkee ci kaso bi looy def ci biti ñun foofu lañu toll benn taleb nag li ñu koy jàpp ak yëpp du ko déranger du déranger benn waa Pastef. kon kay su ma la déggee yéen yéen a ngi xaar tey ñu jàpp Ousmane ko yóbbu ci kaso bi. ma ni ku ñu mën ci jàpp laa wax bu ñu hmm. jàppee Ousmane Sonko du la naqari ñun dañu mën a toog ci kaso xaar fa pour Ousmane génn ñun foofu lañ toll. Hmm. toog ci kaso xaar fa ki am njëriñ pour réew mi moom mu génn waaw ñun suñu njëriñu réew mi mën nañ ko sacrifier nañ ñu may jàmm ñun ragaluñu ragaluñu nattu buñ ci nekkee dañuy sax kontaan. mbégte lañ koy dundee. Hmm. lii nattu la parce que ay noon yu fexe ay mbir ñëw teg ka sa kaw ma ni dundee ka mbégte xalaatal Cheikh Ahmadou Bamba. candidature 2024 bi ndax xajamul. foofu la ñuy jeex candidature 2024 bi voilà loolu nag lañu bëgg xajamal ma xamal yi ni ba léegi kenn mënul tere Ousmane Sonko bokk ca élection ya turam ma nga ca liste électorale ba kon kenn mënu ko ca génne li tax nu mënuñu ko génne amuñu délai sax bu ñu génnee euh, turu Ousmane Sonko fii mu ne nag looloo leen jaaxal ñu jëfur nag. Hmm. ñu jëfur fii mu ne dañu jëfur parce que liste ba mu nekk nekk na ca te bu ñu desee six mois kenn mënul génne turu Ousmane Sonko ca liste ba. a ah, te six mois ñi ñu ngi ci waaw ñu ngi ci délai de. procédure yi ñuy def. mën nañu dem deux mois wala trois mois ci kanam du jeex xanaa déglu. professeur de droit mën nañ ko mën nañ koo def it fast track de ndax réew mi lu nem na munuñu def fas track yoon dafa am fu muy jaare hmm. foofu la ñuy jaare ba mu jeex tàkk amul kenn ku mën a génne maa ngi koy wax sénégalais yi liste yi nga génne ci turu Ousmane Sonko amul képp ku ko def da def lu la neex. kon dara du ko tee bokk 2024. 2024 même dossier bi. Hmm. day bokk ban dossier. Ah. Adji Sarr saay na. Adji Sarr nax saay na. Ah, bu diis gann bi procureur teg ci kawam kay laay wax. waaye bii bu ñu commencé procédure. xanaa xamoo ni procédure bi même bu ko tegoon tey daan bu mën na am appel. te fii mooy muy appel bala ñu koy kon euh, euh, euh, kii définitivement boucler dossier bi. élection passée ma ni ñoom daal yàllaa leen nattu fii mu ne dara la ñu mënalul Ousmane Sonko dara lu dal fatal ay ni mën mënaluñ ko Ousmane Sonko dañuy son rek nag boobu ba léegi ñu ngi sonn waaw dara lañ ko mënalul ndax suñu borom mooy dogal. te réew mi suñu borom moo leen ko dénkoon ñoom. Hmm. kon nañu am ngor ak jom xam ni réew mi ñoom jeexal nañ ci nañu xam loolu te du ñu tànnal kuy toog. jërëjëf Birame Khoudia Lo ñu ngi lay gërëm bu baax amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM fàttali ni yow yaay euh, wala secrétaire général adjoint nga ci parti PASTEF bokk itam ci bureau politique bi jërëjëf. am naa mbégte bu baax di toog sama kër hmm. ku may wër nga ñëw sama kër fekk ma fa. Hmm. mbégte bu baax laa ci am.